fasdun li ab dog la boo xam ne ci wax almasu alal xuffi wa naxwihi masa aw bot mbaalu ko nuru may nañu boo solee ay bot wala kaw si yoo xam ne sarte ñu bëgg a wax daje na ca ba àggee ci di jàpp nga raay rek kaw bot yi mbaa kaw kawas yi bañ a summi bot ya mbaa kawas ya di raxas say tànk moo xam da ngay tukki moo xam tukki yoo moo xam tukki ba tukki bu araam la moo xam bu araamut la ndax dañuy wax ne lépp loo xam ne soo tukkiwut ñu may la ca jàppandal boo dul tukki doonte tukki ba tukki mooy la itam du tey ñu may la ca jàppandal loo xam ne nag moom ci tukki dong lañ koy mayee mi ak jàppandal waaye boo tukkiwutoon kenn du la ko may ni ki dog koor maanaam bañ a woor ci weeru koor tukki rek ay tax ñu mayee ko kooku moom kon bu tukki ba doonee tukki mooy yàlla def ko ca maye waaye ray bot yi nga xam ne moom boo tukki wutul te mën nga ko kon booy tukki bu tukki bu doon tukki bu araam it du tee nga sañ ko di jàpp ba nga àggee ci tànk ya nga raay rek bot ya nga sol mbaa kawas ya nga sol bu ca sàpp ya dajee ak jàpp ndal la muy lu dagan rek amul nag limite li fekk defoo luy tax nga war a summi dàll yi rek lu mu yàgg-yàgg bu la soobee booy jàpp nga raay rek ci kaw bot ya bañ a summi bot ya mbaa kawas ya di raxas say tànk sarte yi tax nga mën a raay rek ci kaw bot yi mbaa ci kaw kawas ya dañ koy def fukk juróomi aju ci jëmmi dàll ya juróomi sarte yi aju ca kay sol dàll ya boo ci boolee sax bilaa xaa ilin mu daal di nekk fukki sart ak benn kon mën ngaa njëkke boo ci boolee bilaa xaa ilin juróom benni sart yi nga xam ne ñoo aju ci jëmmi bot wa wala kawas wa ba ci jëkk mooy na nekk def day ci yoonu Maalik bu donee wëttéen mbaa leneen lu bokkut ak der moom it liggéeyee kawas ya mbaa dàll ya kenn du ca mën a masaa tey muy deru laab bu doon deru medd def ci mën a masaa muy ñaar ñetteelu mooy nañu ko ñaw ñu ko taqale woon ci kol mbaa lu mel ne kol kenn du ca mën a masaa faaw dañuy sartu ñu ñaw ko ni wuure yi ñawee mbaa daal beneen ñaw rek muy ñett ñeenteel mooy lu mu gàtt gàtt te suuf daal dojar yi su gàttoon ba mel ne ku sol ay maraakis nga xam ne agul ci dojar yi dojar yaa ngay feeñ def ci mën a masaa juróomeel mooy bu mu yaatu bopp mbaa mu xat bopp ba nga xamee ne yaatu nga tax na bu dee dox muy summiku ma koy solaat du mën a dox na mën a doxi dëgg-dëgg wala xataay ba tax na kursien xam ne daal la muy tax muy doxi nii juróom-benneel nag mooy bu dara taq ca bot ya loo xam ne day dox diggante loxoom ak jëmmi bot ya mbaa kawas ya ni ki sondeel buruy taq ca wala aw sagar muure ca mbaa leneen daal loo xam ne lu tal la lu nar a dox diggante loxoom bi mu koy masaaye ak jëmmi bot wa mbaa kawas wa juróom benn yooyu mooy juróom benn sart yi aju ci jëmmi bot wa mbaa kawas wa juróomi sart yi aju ci kii sol bot yi mbaa kawas yi mooy ba muy sol bot ya fekk mu ameeg laab bu fekkee ba muy sol bot ya amutoonug laab kon buy jàpp it faaw dee raxas tànk ya te laab ga nekkoon laabug ndox bu tiimoon ba àggal sol bot ya kon sol na ko ci laab waaye du laabug ndox ndax tiim la def kooku ba tey bu dee jàppaat dee raxas tànk ya te it na laab ga mat ba àggal mu door a sol bot ya mbaa kawas ya bu raxasoon tànkub ndeyjoor daal koy sol aw botam mbaaw kawasam door a raxas tànku càmmoñ dañuy jàpp ne sol na bot yi te njàpp mi àggutoon kon ba tey bu dee jàppaat faaw dee raxas tànk ya ñetta ngoog ndax da nga ne na ko sol ci laab muy benn laab ga nekk laabu ndox muy ñaar laab ga àgg ba nag mu door a sol bot yi nag muy ñett ñeenteel mooy sol ga bu mu ci jublu rek lu ko neex ni ki dafa fuddanu bañ fuddan sa ruus tax muy sol bot yi wala rek muy kilifa te kilifa yu mel ni moom di sol ay bot rek tax mu daal di koy sol xam ne waajtaay rek la noonu mbaa doone naa sol bot yi rek ndax ba ma àggee ci di jàpp daal taaye raxas samay tànk xam la lépp lu ko neex rek la ci jublu kon du mën a masaa la tax mën a masaa ca bot yi daal mooy mu jublu ca roy sunna wala fekk aw tàngaay mbaa ab sedd wala fa muy aw ci yoon ba moo naqare aw wala ragal jiit ak jaano yooyu tax mu sol bot yi waaw kay loolooy tax mu mën a masaa ci kaw bot yi rek juróomeel nag mooy sol ga muy sol bot ya mu doon loo xam ne yoon aay woon na ko ko mu dëgër bopp rek def ko ni ki góor su amalee aj mbaa mu xumra li feeg mu yeewu ko day araam ci moom mu sol ay bot ndegam am na yeneen dàll kooku nag bu amee yeneen ba noppi sol bot yi duñ ko may bu dee jàpp muy raay ca kaw bot ya dañ koy wax ne ko faaw da ngay raxas say tànk ndax yow yore woon a sol ay bot su fekkee nag daa amee lor muy amul yeneen daal ay bot rek la amoon góor gi ba tax mu sol bot ya ci gannaaw bu armalee wala muy jigéen nga xam ne kenn aayiwu ko sol bot yooyu ngir armal kon dana ca mën a masaa bu dee jàpp bu ñu nee ko am nga sañ-sañu booy jàpp raay rek bot yi daañu sib bam ca àggee bu bañ koo raay daal di koy raxas jublu raxas nga wecci masaa ga xam nga masaa ak jàppandal la ak woyofal la te loolu lañ jublu ci may ko masaa bot yi mbaa kawas yi kon nag bu ko raxasee def na lu ëpp kon daañu ko sib def ni sax lañ ko def la woon ba weesu ko waaye sib lay doon duñ jàpp ne ak sopp la masaa ga rek yem ca moo gën di ko raxas ndax masaa ga mooy sunna taamuñ ba tey bu ko dee masaa muy toppatoo raf-raf ya ak ruq ya bëgg yooyu yëpp tooy loolu mëtu ko ndax ak jàppandal lañ ci jublu moo tax ñu wax ko masaa gi buñ jublu woon ak diisal dañ koy wax raxas dëgg dëgg dañuy raxasee tànk ya buñ nee nag sañ naa masaa ci kaw bot ya wala ci kaw kawas ya dana dema dem kat ba du ko sañati lépp njëkk mooy mu dem ba amee ci ngaayul farata saa yu waree sangu farata rek moom faaw mu war a summi bot yi raxas tànk ya ndegam la xotti ko mat na ceeru ndëggu la nag moom boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba doon sax taxul mu tàggalikoo dafa taqaloo ba tey du tax mu sañ ca masaa su fekkoon ne itam la ca xottiku bëriwut waaye dafa def bën bën nga xam ne bu dee masaa rek ndox ma jàll ba laal ab tànkam loolu itam dee su ko jéggale du ca mën a masaati su fekkoon ne nag dafa bënn rek dafa bën ba yaatuwut nga xam ne bu dee masaa dàll wa du tax ndox ma jàll ba ci biir tànkam it loolu kon mën ay masaa rek dara nekku ca bu tàmbalee summi tànk bi ci noonee muy roccee tànk ba muy génn su fekkee la ëpp ci ndëggu la ñëw na ba tolloog yeelu bot wa yeelu bot wi mooy fi nga xamee ne bu solee ay bot mooy tolloog ay yeelam moom nit ki ndegam rek la ëpp ca ndëggu la rocc na ko ba mu ñëw ñëw ba tolloog yeelu bot wa na àggale summi gi daal di gaaw raxas tànk yi ndax moom saa yoo summee daal di rek mbaa nga summi la ëpp ca ndëggu la ba ñëw ñëw ba tolloog yeelu bot wa rek lañ la mayoon ci jàppandal jeex na nga daal di su fekkee ba muy jàpp dafa masaa woon rek ci kaw bot ya mbaa ci kaw kawas ya léegi njàpp moomu nag tëjul ndax deful dara lu tëjum njàpp waaye daa dem nag ba summi wenn dàll wa ñu wax ko ne ko summi nga summi dàll wi kat boo bañee sa njàpp mu yàqu xamal ne dàll woowu nga masaa woon te léegi da ngay mel ne ku yor njàpp moo xam ne raxasoo sa tànk kon dal di gaaw raxas tànk boobu bu dee ñaar tànk ñëpp nga summi ak nga sum benn bi ñoo yemoo dal di gaaw rek boo bañee ñàkk sa njàpp mi raxas ñaar tànk ñëpp ci saasa waaye bu yeexee raxas tànk yooyu ci yooyu jamono rek ba mu xas yàgg moom jàpp yàqu kooku nag ñeenti anam la ndax mën naa am fekk mu soloon yaari bot dong mu summi yaari bot yëpp wala fekk mu tegale woon yeenti bot mooy tànk bu ne te caa sol yaari bot baa nga ne tànk bu ne mu sol ca yaari kawas kooku mën naa jomtalu tànk bu ne mu summi bod wa nekkoon ci kaw mbaa mu summi kawas ba nekkoon ci kaw nga xam ne tànk bu ne yaari ci kaw rek la summi waaye tànk bu ci ne des na wenn bot mbaa wenn kawas ak benn tànk ba rek la summi bod wa féeti woon kaw wala kawas wa féeti woon kaw waaye tànk ba ci des moom laalu ko ñetti anama ngoog bu ñeenteel bi nag mooy tànk bu ne benn bot mbaa benn kawas la ca soloon waaye nag dafa summi benn tànk ba ca summiwul ba ca des bi ngeen kon wax moom mooy yaari bot rek la soloon te yaari yëpp la bokk summi ndegam moom mi ngeekuk laab summi gi tax na mu mel ne ku amee njàpp moo xam ne raxas tànk yi da caa manqué mbaa raxas benn tànk ba da caa manqué kon teqale bi mooy su fekkee ne yaari bot rek la soloon summi nag yaari bot yépp te fekk mu ameem njàpp ne daal di gaaw raxas ñaari tànk ñépp su fekkee ne dafa tegale woon ay bot mu daal di summi nag yaar yi féete woon kaw na daal di gaaw kon massa yaar yi féete suuf su fekkoon na it benn tànk ba rek te ba mu tegalee botte mbaa kawas ya benn tànk ba rek lu summi bodoo féete woon kaw mbaa kawasoo féete woon kaw ba tey moom it day daal di gaaw rek massa bodoo féete suuf mbaa dàlloo féete suuf su fekkee nag yaari bot dong la soloon mbaa yaari kawas dong mu summi nag wenn wa benn ba summigu ko koy dutee day daal di gaaw raxas tànk bi nga xam ne summi na aw batam baaw kawasam jàll ca ba ca des moom daal ci gaaw summi raxas ko ndax li nangu mu boole masaalee raxaslee dañ ko wax ne ko tànk bi nga summi rek moo ngay raxas waaye bee moom masaa nga ko masaa woon doy na bu mel ne kon ñaari tànk ñi benn bi ci njàpp mi yore ci ak raxas la nekk benn ba masaa ga ca nekkoon moo ci nekk ba tey déedéet ndegam yaari bor rek la sol moom bu xasee summi tànk bee rek na ko raxas gaaw summi ba ca des moom it raxas ko nga xam ne kon ñaari tànk ñëpp ak raxas moo ca nekk gis nga ne kon yore gi yore am njàpp moo tax ñu wax ko ne ko gaawal def lii bala ngaa ñàkk sa njàpp moomu léegi nag bu yeexee def loolu ci kaw loo xam ne moo ko tey moom bu yàggee rek am jàppam daal di yàqu bu fekkee nag fàtte la moom lu yàgg-yàgg du yàqu li ñu ko waxee woon rek almuwaalaatu ca njàpp moo ngay delloo si fii moo tax mu ne kalmuwaalaati kawas yi lay tax ñu mën koo masaa bu dee ci yoonu alimaamu Malik mooy la féete kaw ca kawas wa ak la féete suuf doon der lu bokkut ak la féete suuf ci dëggu la ak la féete kaw bu doonee lu bokkut ak der itam du tee ñu mën caa massa waaye nag kawas yi nga xam ne moom la ni ëpp yore nga xam ne day bàyyi ko ci xeetu wëtee nag yu demee noonu diir ci mën a massa bu dee ci yoonu al imaamu Malik day wax li nga xam ne moom lañ gën a soppe mu raaye ko bot yi loolu mooy buy raay bot yi day tàmbalee ca cati baaraam ya wuti dober ya te it loxob ndeyjooram féete kaw loxob càmmooñam féete suuf mu tàmbalee cati baaraam ya yooyu nag ba ëmb dober ya tuuti tuuti daa am na ñu wax ne bu dee raay tànkum ndeyjoor lay def noonu waaye bu doon tànkum càmmooñ moom loxob càmmooñam day féete kaw loxob ndeyjooram féete suuf ni ñu waxee léegi nag moom moo xam tànkub ndeyjoor la moo xam tànkub càmmoñ la dañ rek sopp nañ na loxob ndeyjoor ba féete kaw loxob càmmoñ bi féete suuf sopp nañu mu boole masaa kaw bot wi ak masaa suuf ga masaa kaw ga moom day farata bu ko deful saa kaw ga ak masaa suuf ga waaye nag boole masaa kaw ga ak masaa suuf ga waaye nag boole massa kaw ga ak massa suuf ga loolu fi la sopp ga dellu day leeral ne su fekkee kaw bodo moom da koo bàyyi bañ koo massa lam def baaxut day mel ne ku njàpp njàpp manqué bu julli itam julli ga du baax faaw day julliwaat waaye nag su massa woon kaw bod wa bañ a massa suuf ga julli ga baax na waaye nag ngir sàmmoonteeg ñu wax ne suuf ga itam kat dañ ko waroon na massa sàmmoonteeg wax yooyu dina tax ñu ne ko baamu julli ga mooy fay wàññidu bi waxtin baamu ci waxtu moom ak sopp rek lay doon nga xam ne su waxtu wa jàllee duñ ko digalati mu baamu awas yi lay tax ñu mën koo massa bu dee ci yoonu al imam malik mooy la féete kaw ca kawas wa ak la féete suuf doon der lu bokkut ak la féete suuf ñu dëggu la ak la féete kaw bu doonee lu bokk tëdd dar itam du tee ñu mën caa massa waaye nag kawas yi nga xam ne moom la ñu ëpp yore nga xam ne day bàyyi ko ci xeetu wëtee nag yu demee noonu des ci mën a massa bu dee ci yoonu al imaamu Malik